xalaat yu tukkee ci alxuraan du nu mu neex waaye rekk wax ko dañ ko war a jibal ak seen lu ci war ndax ci xool lay jóge daldi di tàbbi ci biir xol wasiqa alladina ttaqaw rabbahum ila aljannati zumara mu wute ak sàmba mi teeloon a Ndeye Bousso Diatara jàng alxuraan tarika ba xol yépp féex loolu tax ba mu jël raaya bu njëkk ci prix bu ñu jagleel njàngum alxuraan ci biir Sénégal mu di jongante bu bokk ren ci bës bu ñu jagleel daara yi. xam ngeen ne jël naa décret 2023 225 bu janvier bi ñu génn moom moo taxawal journée nationale des daara moo waral jotaay bi tey. bi la bés. bokk ci politique bu nguurum Sénégal tëral ngir gën a jàppale yi la daara. ñu bëgg éducation religieuse apprentissage ñu boole ko dëgg-dëgg ak njàngum alxuraan ci ni ñuy former suñuy doom même bu ñu ci école française. sëriñu daara. ndeyu daara ak i doomi daara prox ndollu ci bile bés ngir wax seeni i jafe-jafe sëriñ daara yi téye loolu ñuy takk baraase yooyu ndomba yooyu xam ne bu ñu la ko takkalee nga mën a dem ci sab liggéey ba tey ñu mënta ñàkk ñoo ngi koy sàkku ci yow ci loolu. ndey daal yi c'est des mères volontaires doole waaye dañu séddoo alxuraan di soppee alxuraan te bëgguñu di leen boole ci projet yi. suñuy doom am solo lool ci ëllëgu réew mi ba tax na ñu war leen yar ci diine ngir ñu mën a xam ak ràññee ni àdduna di doxe waaye tamit moytandif musiba ak balaawu àdduna.